a'uzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man daa bi da'wati wa sunna bi sunnati ila yawmi ddin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamiyatu nasruddin waxtaan ci baay daal di bàyyi question mboolem groupe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu njiitalu groupe yëpp ñoon sëñ Pape Ndiaw Pape Mbow ñoon sëñ Keba Silla ak ñi nga xamante ne miinu miinu ma leen waaye tamit ñu ngi ziar tamit naka noonu sëñ sëñ El Hadj Diouf ci durus yu am solo yi nga xamante ne defoon nañu ko léegi. di ziara it sëriñ alhaj Abdoulaye Thiam mi nga xamante ne moom moo nekk ci madinatul kubra ci dëkk bu kawe boobu nga xamante ne foofu la suñu cofeel nekk mooy mooy mooy mooy makka makkatal mukarram ak madinatul munawara ñu ngi koy ziara bu baax ci image yooyu nga xamante ne indil nañu ko ak xaal boobu nga xamante ne mu ngi koy dund di ko di ko partagé ak ñun ñu ngi koy ziara bu baax ci loolu di ziara it sëñ Pam Ndiaye xam naa ne man moom da nga maa dugal sëñ Pam Ndiaye moo tax li nga ma wax ni tamit gën na tax ma ne dinaa dinaa dugg man it joxe sama participation ginnaaw ba suñu oustaz bu mag bii di oustaz Alhaji Diouf nga xamante ne dëgg-dëgg wàll yu kaamil la waaye nag borom xam-xam bu bu bu bu leer xam-xam bu mat bu mat li mu doon la oustaz bu mat li mu doon la comme ni nga ko waxee sànq dinay jël moom sax mooy fay pour joxe dars ndax données yeeg data yi connexion yooyu di nga di nga di nga dugal xaalis pour mën a dugg ci internet jël sa temps di jàngale te kenn joxula ci dërëm wala ñaar di ñaari dërëm kon dëgg-dëgg ñu ngi koy nuyu di ko di ko ziara di ko ñaanal yàlla vraiment nu mu taxawoo groupe bi taxawuñu ko ñun ñëpp yàlla na ko yàlla nañu ko yàlla fayal ci barke Baye di nuyu tamit suñu mbokk suñu xarit ci yàlla tamit Cheikh Tidiane Ndiaye mi nga xamante ne moom a yónnee sànq dars bu neex boobu ak zikër yooyu mu àndal mook sëñ El Hadj Diouf yónnee ma it message sëñ Pape Ndiaye loolu moo gën a tax ma ne kon xam naa dinaa dugg parce que parfois message yi day bëri ba duñ parfois duñu am jot déglu yëpp mais comme ni ma ko yónnee ci suuf noonu ma déglu ko ma ne xam naa liy bëriwul dinaa ko mën a déglu xam naa peut-être dafa am dafa may nuyu wala am na lu ma wax ci laa faf déggaale lii nii waaye nag sama njëriñ rek moo ci nekk moo tax kon incha allah dinañ joxe suñu participation ci ndigalu oustaz bi sëñ El Hadj Diouf kon loolu mu ngi tombek xarful ha i ci téere bu ñuy wax seerul xal bi madaxil Mustafa al xib ila xadarati rabbi mu ngi mu ngi wax foofu huwal xibbu ibrahimu xad jaa zairan li ahmada xayril alamina wa shakira mu ne huwal xibbu kooku moom mooy ki nga xamante ne mooy soppe bi mooy soppe boobu mooy kan ibrahim al xibbu nag su fekkeen dafa am tomb ci kaw xaa bi day doon noon maay fii moom dafa ne xuwal xebbu moom mooy soppe bi ibrahim mooy ibrahima moomu xat jaa zaira dikkal na la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ku lay ziara ah dikk na doon kiy ziara yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne li ahmada xayril alamin dikk na daal ngir ziara li ahmada ñeel ahmad mi nga xamante ne xayril alamina moom moo gën ci lu yàlla bind ci alam yëpp ci univers yi wa shakiran waaye ñëwul ngir ziare ko rek waaye dafa ñëw ngir ziar ko waaye ngir sant ko ci li nga xamante ne defal na ko jullit yi defal na ko moom baay mu ne fa man kaana yanxu li lil madinati zairan siwaahu fa inni ji'tu ahmada zaira fa man kaana képp koo xamante ne daal yanxu da nga jublu lil madinati dem madina zaira ngir zairan ngir ziare siwaahu keneen ku dul moom yonent bi ah man fa inni Muhammad nekk na ci man Baye ah xaw ma keneen de xaw ma kan moo kan mooy dikk daal Madina di dem am soxla ci keneen ah naan da nga koy ziare xaw ma kan de waaye man Baye moom man de man su ma demee bay ziare ji wala may dem ba Madina di jublu foofu ne damay ziare du ma ziare kenn lu mooy. ah fa fa inni ji'tu ahmada zaira man ahmad rek laay dikkal doon ku koy ziara doon kuy ziara yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam man du ma ziara ci kenn aw ma soxla ci keneen lahul masjidul a'la fataha mushiduhu wa aqta'ahu rawdal jinaani mujaawira mu ne lahul masjidu moom mooy borom jàkka al ala bu kawe boobu fa taaxaa moom taaxaa mushiduhu nga xamante ne jumaa jooju noonu nga xamante ne moom taaxaa mushiduhu moom moo ko tabax moom moo ko formé moo ko tabax wa aqtaahu tey dogal na ko rawdal jinaani dogal na ko place ci deru aljana yi mu jaawiran mu doon aji dëkkaale ak moom mu doon aji dëkkaale ak moom jàkkaarloo moom rawdoon boobu nga xamante ne place la ci place aljana yi am na ay xadis ak yëpp yori yu bëri yu si ñëw waaye pour gàttal fiir bi comme kii la duñ ci mën a dëkk dañuy def tafsirul mufradaat rek baat yi rek la ñuy indi yuzakkirunu yuzakkiruni dahra mu ne yuzakkiruni dahran mada wa nabiyuna yaruxu wa yaxdu yublixul waxya zakira mu ne dinañu fàttali dina ma fàttali man bàyyi dahran diitu jamono mada boo xamante ne wéy wéy na dina ma fàttali ci jamono ju wéy wa nabiyuna fekk ñun suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw xaalin la yaruxu way yaxdu ya way yaxdu mooy dina xëy wa yarooxu dina gontu yublixul wax yaa dina jottali wax yu bi zakiran mu ngir moom mu doon aji fàttali nit ñi seen borom yabiitu yabiitu yunaaji rabbahu wa nahaarahu yu ashiruna yahdi ilal xaqi nasira yabiitu dina fanaan moom yonent yàlla moom saa salaam yunaaji di doon aji dee dee deeyaale ak boromam rabbahu dina dee deeyaale ak boromam ci guddi gi ah wa nahaarahu waaye bëccëgamit ba tey yu ashiru naa dinañu gunge dina ànd ak ñun yax di naa doon koo xamante ne yax di dina dina dina doon koo xamante ne day doon koo xamante ne aji gind la ilal xakki naasiran ci diine yàlla gi dina gindi nit ñi gindi jaamab yàlla yi waaye nag doon koo xamante ne naasiran ilal xakki noon koo xamante ne kuy dimbali alxakki diine yàlla gi leen ciy namm moom yonent yàlla moom saasam kon daal guddeem ay nawaafila la ak ay jaamu yàlla deewaale boromam waaye terewul guddeem bëccëgam dina ànd ak jaamab yàlla yi doon ku leen di gindi doon ku leen di ku leen di jàppale daal ci seen ay mbir fa asa ruhu dallat alayhi tabassaran bi makkata amral haashimi addahra zahira mu ne fa asa ruhu ay jeexitalam ay trasam moom yonent bi dallat dina tegtale alayhi ci moom tabassaran na nga xool xoolu settantel xoolu setlu bi makkata ci makka amral xaashmi mbiru yonent bi mbiru bani ki nga xam dafa bàyyi ko ci waa giiru banu xaashim mu ne addahra diiru jamono zahiran ay mbiram feeñ na mbiram moom nga xamante ne ba mu koy woote ñu naan ah du soreek di ko xeex mu ne soo seetloo rek ay trace yonent bi di nga gis ne kat dëgg-dëgg ah tegtale na kooku mooy kan soo xoolee tàmbali wam keroog ca Màkka nu mu tumurankee ak fa affaire bi àgg ak nu mu ñëwee ba Sénégal di nga xam ne ne mbiram kat fës na li alxuraan wax naan yuridu naan yutfal nuurallaahi bi afwaahihim dañu bëgg a ñoom fay leerab yàlla ci seen ci seen ci seen ay gémmen waaye nag yàlla moo lànk pour ñu fay leeram loolu la wati taybatun haadaka badrun wa xandakun wa xandakun wa za uxudun tunsiika badwan wa xaadira mu ne wati naka lii taybatun taybala haadaka naka fële ne badrun mooy badar wa xandakun naka fële it mooy xandak badrun mooy fi ñu defee xare badar tayba suñ ko waxee mooy mooy Medina mooy madin madinatul munawara am na lu ëpp fan lu toll ak fan weeru tur sax wala lu ko ëpp am naa ñoon Cheikh El Hadj Diouf dinañ ci ñëw wa wa xandakun fële mooy xandax soo fàttalikoo Salmaanul Faris ba muy xalaat ba muy joxe xalaatam bu rafet boobu pour ñu gas fossé bu mag boobu noonu mooy pax mu rëy moomu mu wër kii moom la ñu woy xandax xare boobu noonu mu ne fa fii mooy Tayba fële ne ngay gis mooy badar waaye nag naka fële yi tamit mooy xandax waza uxudun dafa mel ni kuy présenté dëkk yi rek waza uxudun naka fële mooy uxud tun siika dina la fàtteloo badwan ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci dëkk àll yi waxaadiran ak ñi teew bi maanaam dina la fàtteloo dina la fàtteloo ne dëgg-dëgg julit yi warul julit warul am warul ne man si luxe laay dëkk rek wala ci maa ngi dëkk ci pauvreté damaa ñàkk ndax maa ngi dëkk ci àll yi ba waruma wuyu xare yi waruma xeexal lislaam mu ne ñooñu sëgëm ñooñu ñoon ñooy ñoon ñoo bàyyi seen opulence yi mooy seen luxe yooyu ñu nekkoon ñii tamit ñàkk ba mënoon joxe ay lay terewul ñun ñëpp daje nañ ci tooru xare yooyu ci place yi ma la wax nii sànq di fa xeexal yonent bi ah mu ne dëgg-dëgg lii soo ko xoolee rek dina la fàtteloo ne jullit daal yooyu yi ngay bàyyi xel yooyu yëpp jarul jarul bàyyi xel na nga ko fàtte te xam ne ne xeex su jotee rek yooyu yëpp dañ koy fàtte lig si yeeg yooyu noonu yëpp ñu wax fa barhaamu yati zairan mutawassilan mustashfian arjuka fil fil qabri xaadiran fa barhaamu naka barhaam moom fee mu ngi wax ibrahim waaye fii barhaam la wax yati dina daal di dikk zairan ngir moom muy di mu nekk aji ziare kuy ziare yonent bi mooy yonent bi lay waxal nag fii dina doon kuy dikk di la ziare yow yonent bi mutawassilan waaye tamit di sàkku jokk ci yow di di sàkku jottalikoo ci yow ah comme ni ko sëñ El Hadj Diouf waxoon sànq rek que ne ñoon dañu foog ne kenn waru jottalikoo ci kenn foofu noonu waaye bàyyi nag moom mu ngi leeral pas-pasam ndax moom suufi la mu ne man dinaa sàkku di la ziar waaye tamit yemuma ci di jottalikoo ci yow yonent salaa salaam mustash fi an ma doon it koo xamante ne day sàkku tinu sa tinu nga ramm ko arju ko it yaakaar naa la xaadiran nga doon koy aji teew fil xabri ci sama xabaru bi su moo génnee àdduna bi su moo deewee bëgg naa yow yonent salaa salaam nga doon kuy teew sama xabaru ngir rammuma fa kundi shafi an yawma zaaxat wa adanat wujuhun wa absaarun tara alkulla xaaira fa kun na nga nekk shafi an ajitinu lii ñeel ma yawma zaaxat bis bi nga xamante ne jeng na dina jeng bokk wa azanat dina daal di wommatu wujuhun ay xar kanam wa absaarun ak ay ay bët tara di nga gis alkulla mboolem seen xaaira ñuy doon ñu gëlëm ñëpp ay gëlëm jour boobu ñëpp ay jaaxle ba gëlëm ba ba ba jaaxle daal wa xad shaaba wildaanun wa xaafa mu ammanun wa qad balagat kullul qulubi alxanaajira wa qad shaaba bis bi nga xamante ne dëgg-dëgg dina dina bejjaaw wildaanun ay xale yu ndaw dinañ bejjaaw ngir ngir jaaxle waxaafa dina tiit bis boo xamante ne dina tiit mu am manun koo xamante ne dañ ko wóoluloo wóoluloo woon koo xamante ne dafa dañ ko wóolu woon wóoluloo woon comme buur yeeg yooyu nga xam si dañoo am ay garde corps ak ku ne nga xam wóolu dañ la wóolu woon woon ci àddina nga nekkoon en sécurité mu ne jour boobu noonu nga xamante ne dina tiit xam nga suñu ne xaafa tiit moom moo gën a fort ragal bis bi nga xamante ne kon ñëppay ragal lan la bëgg wax ñëppay tiit waxat balaxat kullul qulubi ala xanaa jira bis bi nga xamante ne xol yëpp dinañ daal di jot dina daal di jot kullul qulubi bépp xol al xanaa jira potax ya mooy xol yi bokk dinañ tiita tiita tiit ba àgg ci potax ya ngi ci ci put ya tiita tiit daal ba ba jaaxle mu ne bis boobu noonu wa kullu bari in képp koo xamante ni innocent nga bari in mooy koo xamante ne set nga ci ñu ñu lay tuumal wala set nga ci ñu lay ci ci ci ci bokkaale koo xam dafa set daal ci bokkaale yàlla mu ne même ñooñu sax xaala nafsi yi dinañ dinañ wax bis boobu nafsi sama borom rek sama bopp rek laa tal tey xaala nafsi nafsi sama bopp xanaa yonent bi moom mooy wax ummati wa qad jasa dina daal di bis boobu tamit dina daal di bis boobu tamit dina daal di bóof bi maanaam dina daal di sukk nit ñëpp mooy ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci ñu ngi doon def lu leer ak ñi defu lu leer ñëppay tiit ñëppay jaaxle ñi set ñi innocent ñi innocent wul dina daal di boof aljami mboolem seen mboolem ñëpp may ma damay enregistré falaatul fii doo fekk ci bis boobu xunaaka foofule akaabira ab nga ay ngand foofu daal du am ngand ay ngand daal du fa am bi maanaa daal ñii dinañ tiit dinañ sukk dinañ boof ngir ne ñoom loolu moo nekk ci ñoon waaye ñee di jéem a ndax yàlla mooy ñi nekkul ci yoon waaye nag boobu daal bis boobu daal yàlla na si yàlla musal mu ne wala wala malikan wa wala malikan illa illa ilahu wa shafi an siwal mustafa al muxtaari bada an wa axira mu ne wala malika déet buur illa ilahu ndare ilahu moom yàlla wa shafi an déet tamit aji rammukat doo gis kuy rammu siwal Moustapha lu mooy ki ñu segg al muxtaari ki nga xamante ne dañ ko tànn ba an ci njëlbeen wa axiran ak ci mujj fa mutamadi xaqan ataahu muhammadin waxal yataxaddaani azzamaanu mukaabira fa mutamadi sama cëslaay bokk sama wéeruwaay wala boog sama ndëgër laay xaqan ci dëgg ataaw muhammadin bis boobu du doon dara lu may yaakaar rek mayab yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal yataxaddaani ana kan mooy samp nëndëm waxal ndax dina am yataxaddaani koo xamante ne dina ma daal di dékku comme mbër yi rek benn mbër su ñëwee taxaw ni keneen ñëw ne da koy dékku ndax mën na ko atam wala daal samp ndënd waxal yataxaddaani ndax dina ma dékku ak zamaanu jamono ndax jamono dina ma dékku mu kaabi mu mu kaabir mu kaabiran ay ay ay ngande ñoo xamante ne daal dañuy ne dañuy daal di kii wanteeg man daal aw kii kii wanteeg man daal ñoo xamante ne ñoo xamante ne daal daanaka diiran diiranteeg moom mbagg ku mën a diiranteeg moom mbagg bis boobu mu ne li nafsi yàlla na nekkee ci sama ci man ci sama bakken wa abaay ak samay baay wa nasli ak sama sama sama sama samay samay samay ngirt mooy bi maanaam li dalee moom bàyyi ay doomam wàcc ci suuf waruf xat yi ak samay kàndaale ah shafaatuhu mooy tinoom moom yonent bi saa salaam yàlla nekk ci man daal samay bàyyi ak samay ngirt ak samay àndaale yàlla nekk ci ñoon ñëpp ràmmub yonent yàlla moom saa salaam bis boobu nag nga xam day jaaxle bis bu doy waar boobu noonu nga xam ñëpp ay jaaxle bis boobu yàlla na rammu yonent yàlla moom saa salaam nekk ci ñi ma tudd nii ci kaw léegi nii wal xakku abda asaira te fekk moom borom bi al xakku abda dina feeñal asaraira ay ay ay sirru ay secret wam yi yow ma tubla sarairu ma law min quwatin wala naas bis bu yàlla di feeñal secret yi ya secret yi daal su ko yàlla di feeñal di ko wëññi bis boobu yàlla na doon yàlla na ko feeñalee daal ak rammob yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ci man ak sama ak sama bàyyi yeeg sama ngir teg sama àndoo yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp mu ne radiyallahu radiyallahu an cheikhi wa asli wa murshidi radiyallahu yàlla na ngërmande yàlla nekk an cheikhi sama sëriñ wa asli sama sama sama sama bàyyi bokk mooy cosaanam alaaji Abdoulaye Niass fii la ci jublu wa murshidi ki nga xamante ne mooy gindi sama waqad acha ki nga xamante ne dëgg dëgg dund na dundam gi yax dinaa ci di ñu gindi ci di ñu jubale ila diini ila diini ci ci diine yàlla bi nasiran nekk it ku aji dimbali diine yàlla ji moom alaaji abdoulaye nu mu ko dimbalee mooy bi xas bi xaswin ci xare ndax xare na ànd ak mabba jaxu keroog ba nga xamante ne mabba jaxu rey nañ ko ci somb côté Fatick la yemul ci xare bi waaye wa taalim dafa sayar mati doomam woowaat na ko ci xare bi waaye dañu dem ba ci biir mu gis ne xare boo xamante ne tegatuñu ko ci yoon ak ci dëgg ay mbiru fayonteeg ay ray julit moom alaaj Abdoulaye mu daal di wax ne man lii duma ci bokk ci la daal di laxas daal moom dem continuer li mu nekkoon bay ak jàngale moo tax mu ne kon bàyyi ne sama bàyyi xam nga bàyyi fi mënoon wax alaaj Abdoulaye waaye dafa ne kenn du tagg boppam mu ne looloo tax am na Oustaz Baram Diop sax mos na ko wax ci suñu dabaan ci réewu naar yi muy wax ci boppam mu ne bàyyi mu ne kenn du tagg sa bopp mu ne moo tax bàyyi néew na sax ci ay mbindam nga ciy gis muy tudd Alaaji Abdoulaye lu bëri ni lu mooy da koy junj nii rek. waaw pour wane ne nit ki ndax du tagg ay maam ak yooyu loolu loolu la daal mu ne waaye nag da koy sant daal lu bëri su su tuddee alaaji abdoulahi daal ñaareel pour sant sant ko lay doon alaaji abdul ilahi bahjati tuulal awaane ak yu mel noonu mu ne bi bi bi bi bi ghazwin dina moom alaaji abdoulahi boobu dina dimbalee diine bi bi ghazwin ci ci ci xare ci ay xarek wa taalimim ak ci jàngale wa xajjin ak ci xaj nga xamante ne xaj maak xaj maak jamono yooyu mën ngaa def sax ñaari ñaari at pour aj ci ku yàlla dimbali ah wa xijrat ndax da néewoon na sax ngay dégg sëriñ bu aj kon loolu lépp ci dimbali diine ak dimbali sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay wax fii mu ne waaye tamit wa hijratin ak ci gàddaay ndax alaaj Abdoulaye gàddaay na ñaari yoon sax dem Gàmbi ci xeex bi ba ginnaaw ba ginnaaw sa sax ci benn xeex lan taal jàkkaam jéeg yooyu loolu tamit taarix boobu xam naa ne asatis yi dinañ leen ko indil donc pour gàttal ak firi bi pour mu bañ a jël temps waa ach waa acha shakuran wa huwa qad acha sabiran waa ca te moom alaaji abdoulaye moom dund na shakuran ngir mu doon aji sant yàlla koo xamante ne ku sant xewalab yàlla la wax wa xad te it moom xad aca nekk na tamit dëgg-dëgg ko am dund na saabiran di muñ ndax lii yàlla tegoon ko yëpp su dul woon muñkat ak xaj yeeg xijëre yeeg xare yi yëpp su dul woon muñkat du ko def moom daal dundam dimbali na ci lislaam sant na ci yàlla wax dëgg neex yàlla bon muñ na vraiment jàngale na def na lépp kii daal jar naa sant alayka salaatullahi yàlla na nekk xewalab yàlla suma salaamu ak muccam atay ci ci moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moomu mu ne mu ne ataytuka dikkal naa la barran ci jéeri su su summa baxra baxran ak ci géej gi wa tairan ak ci avion yi mooy ci kaw ci jaww ji nag la fi bëgg a wax ndax bàyyi xam ne ne su waxoon barran suma baxran may ma damay enregistré baxran su ma waxoon waaw demal waaw demal demal waaw demal suma su waxoon suma atay suma bàyyi su waxoon maa ngi jégalu bàyyi su waxoon ataytuka barran suma baxran wa wa jaw jaw jawwan munoon na wax wa jawwan waaye boobaa rim bi day yàqu bayti bi day damm moo tax mu ne wa tairan tairan avion lañ ci jublu waaye du du avion lañ ci jublu waaye mooy jaww ji rek dikkal na dikkee naa la ci jaww ji mu ne bi nafsi ak sama bopp sama bakken wa awlaadi ak sama samay doom wa sax bi ak samay àndandoo wa usarati ak samay famille famille nag suñ ko waxee fii mooy famille au sens large ngam ñëpp a ngi ciy dugg bàjjen yeeg ndi jaay yeeg ñëpp fa mu ne fa at xif lana ridwaana batnan wa zaahira mu ne yal nag ñu may yal nag yal nag ñu may lana ñeel ñu ridwaana ngërmande yàlla ah mboolem xeetu ngërmande yi wala boog laala moom ngërmande yi batnan ci lu lu lu lu lu nëbbu wa zahiran ak ci lu feeñ alayka salaatullahi yal na xewalab xewalab yàlla nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suma salaamu topp muccam wa alin yal na nekk it ci ñoñam wa aswaajin ak ay soxnaam moom yonent wa man kaana achara képp ku àndoon ak moom rek te nga bokkoon ak moom jamono yal na nekk ci loolu kon oustaz Alhaji Diouf jërëjëf lii mooy sama participation Oustaz Pape Ndiaye ak Cheikh Tidiane ak ñun ñëpp su ko defee xam naa dinañ bàyyi suñu sëriñ Oustaz Alhaji Abdoulaye moom dina mën a dugg ci leeralaat yenn kii yu bëri ak place yi foofu wax ñu taarix yi ak siire yi foofu moom mi fa ne wa ma zalika ala llahi bi aziz di nuyuwaat ñëpp waa jamiyatu nasruddin suñu xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass yal na yàlla guddal fanam yokk wéram jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokk seen xarit Moustapha Guèye asalaamaaleykum